Salam Salam askanu tëngéej suma dëkk suma fief voilà ma leen de di H24 SN voilà di ñëwaat rek pour rappeler bien fait ñu ci xel muy danger yi nga muy am aussi ñun tëngéej ñu ne muy tunnel bi nga ne nek dox à la place bi nga sommes ne nañ ci pont bu nit ñi jaar ñu pont donc du coup pour man jeunesse bi war ñu nopp ne cell autorités yi aussi war ñu nopp ne cell nañu tijji li nga xamante ne mooy pont bi ndax amul benn sécurité oto yi di jaar ni nit ñi di jaar ni ñaanuñ ko yàlla bu oto drapé laal nit wala dara coow li dina bari te bu boobaa euh, leneen mën na si juddu te doomu tëngeej ñu ngi teg beneen bi aussi ci li nga xamante ne mooy suñu canaux à ciel ouvert yi nga xamante ne tey ñu ngi koy tëj te bu doon évacuer ndox mi yëpp nañ xaar nag nawet bu bari euh, te mën a indi euh, li nga xamante ni mooy inondation ndax fii waroon doon évacuer yëpp tëj nañ ko nar si teg ay cantine wasalaam